بكل فهوم والمعاني وهو الكنز فنور به الأنوار في الكون كله وآدم من ذنون بان له الرمز فنور به الأنوار في الكون كله وآدم من ذا النور بان له الرمز متى سطع البرق الوميض محمد تدلت مزون الربح واستوطان العز تعرضا للسيب البحور وقد ملا كذاك الأواني عند ذا عمان الفوز وقد لمع النور البحر المحيط لكوننا بكل مكان من أذل ومن عز عزوا فعينك عين الحق عرش حقيقتنا به يجتلي العرفان والسر والميزوق فنسقى من عين المعارف أحمد فيا ويح من عصاه يا ويح من يغزو صراط إلى رب البرية من يحد يخيب وينحو نحوه الخزي والبذو كما اعتداء اعتدال لا اعوجاج يشينه وطلعة وجه الحق والفيض والكنز إفاضته منه إليه وإنه لسر لدى أهل الحقائق واللغز وصلى عليه منه بدءا ومختما صلاة على الهادي بها اتضح الزمن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 jamono sama ramaani sànni na ma wal amiinu te amiin ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiñ óolu ci waxyi bi alfawzu texe bihi aji nekk la ci sababam jamono sànni na ma waaye man ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom lay texe comme ni waxoon ramaw nii wa maanaalu muraadan wa inna sànni nañ ma waaye duñ jot seen càkkutéef jamono moom du def dañuy def ci moom xasida bi bàyyi radiallahu anhu jawharatul kamal moom la defaat ci xasida bi waxu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama markaz yi mooy sama centre mi nga xam ne mooy delluwaayam maa dara ni loruma hamzun wàññi ci teewaay wala lëmzu wala wàññi ci fàddu xam nga wolof yi dañoo wax ne piis ak waaye kii piis noonu dafay wàññi nit ki fekk ci teewaayam rek la lëmzu mooy wàññi nit donte nekkut ak yow wax ci deram walla wax ci askanam looko koy jéem a wàññee axaata léem na bi sirril xaqi ci mbooti dëgg ke yàlla tabaraka wa taala waaye xaqu foo gis ñaare mu koy tudd da gis ne jàppee wilaayatu lay junj ay ya ixaatatin gépp ak léem bi kulli fuhumin ci mboolee mi dégg yi wal maani ak maanaa yi waxu moom el kanzu mooy ndaxañteef bi nga xam ne ba yàlla bëggee feeñal nekk gi nga xam ne nekkoon na ci cosaan cosaani loolu mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy kanziyatul xaqi googu nga xam ne ci la yàlla feeñalee lépp lu mu feeñal kuntu kanzan lam u'raf fa ahbabtu an u'raf fa nuurun leer te mooy nekk bihi tukkee na ci moom al anwaaru leer yi nuuruhu awalul wujudi wujudan wa aslul usuli wal anjaali allahu nuuru samawati wal ard muhammadu nuurul xaqi takfi ishaaratin ila nuurihi almaxfi sumaahu muhammadu <clears throat> walaw alima al aqwaamu maana muhammadin xaqiqata ilmin azzamuhu wa majjadu nuurun min altalcati algarraai qad xajaba wajha almuhaymini waltaxmidu qad wajaba liannahu law bada wajhu almuhaymini ma in tabqa min zaratin fi lkawni aw jazaba la baa kon leer googu moom mooy moom mooy xijaabul azam moo tax mu ne leer goo xam ne mu ngi fenkee ci fenkuwaay gu mat ga moo muur feeñ ak jëm yàlla ji feeñ gi nga xam ne bu ko feeñoon dara du nekk lépp daf koy ñàkkal delloo ko ci ñàkk gu njëkk ga leer googu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ci la lépp amee bi tukkee na ci moom anwaaru leer yi fil kawni ci nekk gi kullihi léppam wa aadamu aadam min dan nuuri tukkee na ci bila leer tukkee ci bila leer baana la bitee lahu ñeel ko arramzu junj yi nga xam ne wa allama al aadama al asmaa kullaha ci barkeeg leer yonentu boobu sallallahu alayhi wa tere mu ngi bind min zan nuuni min la baana lahu ramzu ci sababi leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sëb bi yonent sallallahu alayhi wa sallam ci la aadama xamee junju ci la aadama xamee tur yi nga xam ne moom la ko yàlla xamal mata sataa <coughs> waxtu wu fenkee albarqu melax alwamiidu bay aji melqati mooy muy mooy buy leer rek muhammadun muhammad sallallahu alayhi wa sallam leer googu nga xam ne waxtu bu fenke te dëllët jege muzunu rëbxi niiri texe ak gañe wastawtana te dëkk al izzu teranga <clears throat> leer googu nga xam ne cila la muzunul arbaax yi ci lay jugee waaye ci la teraanga di ñëwee mu ngi lay junju te jëliyaat xaqiqatul muhammadiya ba àgg ci feeñu waaye ak mat ga taarada gaarlu na li sëy bi ñeexal may gi albuxuuru <clears throat> géej gi albuxuuru waqad mala te mooy géej yooyu mooy al anbiyaau wal mursalina yi ñoom ñëpp ci tawab mu zunul rëbxi yi nga xam ne mu ngi jugee ci aynil maarif al aqwami ci lañ jëlee seeni tëbb wa qad malaata fees na kazanaka noonu al awaani ndab yi muy feeñi waayi wilaaya yi wàll yu yëpp indaza foof foobale amana la matalañu alfawzu texe yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo tëbb mbooleem yonentu yi waaye moo tëbb mbooleem wàllu yi waqat la maa melqatina an nuuru leer maanaam jolli di bit almuxiitu bay aji léem mooy leer ak yonent bi sallallahu li kaw ni naa ñeexal suñu nekk bi kulli makaanin ci mbooleem barab mën uzillu ña toroxaleef nañ leen suufeel nañ leen wa mën azzu ak ña nga xam ne ni ñoom lañ màggal ñoom ñépp ci tëbbëg leer yi yonent bi sallallahu lañ jëlee fa aynuka jëmmu sa aynul xaqi mooy jëmmi dëgg ka yàlla tabaraka wa taala arshu xaqiqatin mooy arasi xaqiqa ndax arrahmanu ala al arshi istawa la yàlla wax li li mu wax yàlla tànnut benn tur ne moom moo def istiwaaw ci arsh lu may arrahmaanu ndax ayn rahmati rabbaniyati moom moo tëbb lépp luy xam looloo tax mu ne arrahmaanu ala al arshi istawa mooy istiwaaw rahmati ala al mooy tajalli al muhammadiyati fi l ahmadiyati bihi ci sababam li dana feeñ al irfaanu xam-xam ci moom la nit ñi di tëboo xam-xam wa sirru ci lañuy tëboo tëbboo mbóot wal mayzu ak jàqee mooy xàmmee xifaa taxaw leen nusqa def naandal ñu maanaam ñi naan min aynil maarifi ci nga xam ne mooy jëmmi maarifa yi ahmadin kay ahmada fa yaa wayxa man oonama toskara ka xam ne aasaahu mooy na ko yaa wayxa ki nga xam ne yaxzuuhu moom yonentu sallallahu ko song maa ngi oo toskare koo xam ne mooy nga yonent bi sallallahu alayhi wa waaye on a koo xam ne dem na ba yonent bi sallallahu alayhi wa jug di ko songu xare <coughs> siraatun yoon la ila rabbil bariyati jëm ci borom mi mbindeef bi moom mooy siraatul mustaqim bi nga xam ne mooy àggale ci yàlla tabaraka wa taala man yaxit ku jàng yaxiibu mu perte wayen xuu tey jublu naxwahu wàllam al xisyu gàcce wal bëzzu ak mer maanaam gu tukkee ci yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne ku jaar yoonam jub mooy yooni njub pour mbindeef yépp waaye mooy ki nga xam ne ku dënga yoonam perte ak mer ak yàlla war ko kamaalu i'tidaalin matak xemoo la yoonam bi yoon boo xam ne mustaqim la wasat la xëpput xeesut laawi jaaje dëng yu siinuhu di ko ñaawal wa talaatu wajhi lxaqi yi nga xam ne mooy feeñu waayi jëmmi dëgg gi ka yàlla tabaraka wa wal faydu moom mooy may gu bëri wal kanzu mooy ndaxañteef mooy luñ denc ifaadatuhu bëbbam minhu tukkee ci moom ilayhi jëm ci moom bëbb foo xam ne ci la jugee delluwaat ci yàlla wa innahu naka moom la sirul mbóot la la daa ahlil xaqaayiqi ci ñoñ xaqiqa wal luxzu tey tey junju <coughs> jam la boo xam ne maanaam dañ ko def lu nëbbu la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bëgg yàlla gu tukkee ci yàlla delluwaat ci yàlla loolu mooy lan mu ne la mooy mbóot mbóot mooy lan wa ahmadu sirru zaati wa zaatu sirruha tasaawa ala idrakihi ljaldu waahina <coughs> wa salla yàlla julli alayhi ci moom minhu tukkee moom bët ën ci tàmbali wa man ak ci mujj gi te mooy feeñal gim feeñal eh, peeb yonentu bi sallallahu alayhi wa nga xam ne julli yàlla ci moom mooy tëjali gëm def ci moom julleem ci yàlla mooy melloo gim melloo melokaana bi nga xam ne moom la yàlla def tëjali ci moom mu melloo ko salaatan di julli alal haadi ci yonentu ki aji juble biha ci sababi julli googu ittadaxa la la la bidee ramzu junj bi allahumma salli ala sayyidina bismillah arrahman irrahim ليلة الثلاثاء الثامنة من ربيع الأول عام خمسة وسبعين ثلاثمائة وألف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إلى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العصر الله تبارك وتعالى إذا قال شيئا علمنا أنه الحق لا سيما إذا أقسم به والعصر qiila innahu dahru wa qiila innahu xayaatu rasulillahi sala llaahu alayhi wa sallam wa ida taamalta wajadta hada waaxidan aqsama alxaqu tabaaraka wa taala bijaahi bi xayaati rasulillahi sala llaahu alayhi wa sallam wa casrihi inna alinsana la fi xusrin illa alladina aamanu wa camilu alsaalixaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabr kullu insanin muhaddadun bi hada alxusraan والخروج من هذا الخسران لا يتأتى إلا بأربعة أمور فقط الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه أربعة أمور لا يتأتى الخروج من هذا الخسران إلا بها فمن آمن فقد خرج من الخسران بالإيمان ومن عمل صالحا فقد خرج من الخسران بالعمل الصالح والتواصي بالحق كذلك والتواصي بالصبر كذلك إذا يتأكد علينا أن نتواصى بالحق والصبر فالإيمان alhamdulilahi ha huwa indakum wa nahnu kulluna aw juluna xasala cheyan min alamali saalih lakin la budda min altawaasi bilxaqi wa bilsabr wa hadihi hiya daawatu ila allahi taala la budda lana an najtahida fi daawati ila allahi addaawatu ila allahi la budda minha قلت لجماعة في بعض البلدان إن الدعوة إلى الله واجبة على كل فرد منا ليس كما يظن فقط يظن فقط أن المشايخ والعلماء والكبراء هم الذين عليهم الدعوة fa kullu fardin tajibu alayhi daawa ila allahi taala wa ana tafakkartu anna kulla jinsin min ajnaasi <clears throat> annaasi yad'u jinsahu ila allahi fa dalika ashaddu tasiran fi qulubihim ka ahli alxirafi wa ruaati wa ahli alxiraasaati wa gayrihim fi ruaati ida ra'aw ahadan min jinsihim yusalli wa yasuum mustaqiman ala umuuri ddiini iqtadaw bihi li annahu min jinsihim والنساء إذا رأينا امرأة منهن مستقيمة على أمور الدين أيضا اقتدينا بها لأنها من جنسهن وأهل البساتين كذلك والصبيان كذلك وأهل الحرف كذلك بخلاف إذا أتاهم شيخ كبير كامل ليس من جنسهم يقولون هذا ليس من جنسنا فأهل الغفلة جهلوا أنهم يجب عليهم شيء لأنهم يقولون عندنا عذر في ذلك وكذا إذا أتيت أهل البساتين فيقولون لك بساتيننا هي التي شغلتنا عن الفرائض ويتخذون ذلك عذرا وكذلك الرعاة إذا أتاهم شيخ كبير ليس من جنسهم يقولون هذا ليس مثلنا ولكن إذا جاءهم راع وهو مستقيم في الدين اتبعوه فإذا يتعين على كلنا أن يدعو جنسه ومن أمكنه إلى الله هذا واجب على كل واحد لا تبرأ ذمته إلا به wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaati nnaasa fi majalisihim wa buyutihim wa yadcuuhum ila allahi taala والصحابة كذلك لا يتكاسلون وهذا الدين واضح ليله كنهاره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه والخلاف ليس بممنوع wa inna al insana xuliqa lil xilaafi walaa yazaaluuna muxtalifina illa man raxima rabuka wa lidalika xalaqahum wa ixtilaafu alulama rahmati almamnuucu walmazmuumu altafriqatu lil xilaaf فالإنسان يفهم فهما ويفهم الآخر فهما فيختلفان وذلك ليس مذموما إنما المذموم تأثيره بالقلوب وإذا اختلف الفهمان لا يحكم أحد بأن ما عليه هو الصواب وما عليه الآخر خطأ in amkana al-ittifaqu fa huwa ahsanu wa illaa fala yadurru al-xilaaf in lam yu'assir wa qad waqa'a al-xilaaf fi as-saxaabati wal-xilaafaat kullan idaa ta'ammalta aslahaa wajadta aslahaa wajadtahaa xafiifan laakin yadxulu ash-shaytaan wan-nafsu fa yajcalaanihi xilaafan shadiidan wa yufarriqu bayna an-naasi wa kadaalika a'daa'u ad-diini tajidu jamaa'atan mukhtalifatan ixtilaafan xafiifan fa tufarriqu baynahum a'daa'u ad-diin fa tawaa'ifu al-islaam al-xawaarij wash-shiica wa ahlu as-sunna wal-jamaaca idaa ta'ammalta min xilaafi من الخلاف مبنى الخلاف بينهم وجدته خفيفا وكذلك الطرق وكذلك ولكن ذلك لا يؤدي للتباغض ولا للتحاسد ولا للتنافس وقع شيء في زمن الشيخ التجاني بين كبيرين من أصحابه حتى أثر في أتباعهم فأفضى بهم إلى عين أفضي بهم إلى عين الماضي فرفعوا ذلك إلى الشيخ فقال من يعرفني يعرفني وحدي ورفع الإذن عن المتسبب بالشحناء بينهما تأديبا له والطريقة لها شروط وأنتم تعلمونها والانقطاع لا يحصل إلا لمن ترك الطريقة رفدا لها أو لمن زار وليا زيارة تعلق أو لمن أخذ وردا عليها ودليل هذا أن الشيخ في قيد حياته مع كثرة من أخذ عنه ومن أخذ عمن أخذ عنه من قطع عنه إلا ثلاثة أشخاص qaala amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an arfa'a al-izna an rajulayni zaara mawlana abdussalam ibni mashish hada alladi inqata'a an ash-shaykh fi qaydi hayatihi wa man akhadha at-tariqata bil-izni sahih وتحمل الشروط وحافظ عليها وهذا هذا لا ينقطع الا باحد الثلاثه المتقدم ذكرها والمريد اذا اخذ الطريقه سواء لم يعرف اسانيده أو لم يعرف البعد هذا لا يضره ولا ينقطع مدده عن الشيخ ولا انتسابه أما ما ترى أما ما ترى أحدا قادريا يستمد من الشيخ لأن مدد الأولياء كل منهم بدليل قول الشيخ لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا وهذا يظن أنه يستمد من الجيل فعدم علمه بالشيخ التجاني ما ضره وقد سئل الشيخ التجاني عن شيخ تارة يجمع على رسول الله وتارة يجمع على نفسه فقال واحد ذلك وسئل السيد مولد فال سأل السيد مولد فال الشيخ محمد الحافظ hal yajcaluhu cheikhahu aw yajcalu cheikh tijaani cheikhahu qaala lahu cheikh mohamad alxaafis in qulta inna cheikh tijaani cheikhuka fa huwa cheikhuka wa in qulta anni cheikhuka fa ma dalalt amma ida ataani ana ida ataani muridun wa qaala li ana laa acrifu illa anta wa laa uridu shan illa minka wa ataani axaru wa qaala li ana laa acrifuka laa acrifu illa wasitati fa hada siyaani ida kaana ittasala bisanadin saxiix fa idan almuridaani waaxidun إذا أخذ مريد عن الشيخ الهادي وقال أنا لا أعرف إبراهيم وأخذ واحد عن الشيخان وقال إنه لا يعرف إبراهيم فهذا واحد لا فرق بينهما أعرف مريدا صادقا محله قريب من كولخ إذا صنعت صنعت التلامذة البساتين فهو أكبرهم بستانا وإذا جاءوا بالهدايا فهو أكثرهم هدية وإذا جمعني معه محل يقول لي أنا لا أريد إلا من سرين بي وهذا أدب كامل نخلة غرستها وصار لها ثمر وأكل أحد منه فقال أنا أكلت من ثمر نخلة وإذا كان هذا ولم يضفها إلي فهذا أكل مني وإذا قال إنه أكل من ثمر نخلة فهذا واحد فإذا كان هذا واحدا فكذلك من أخذ عني وأخذ من أخذ عني فالكل واحد وهذا لا يؤثر في القلوب ولا يؤدي لتباعد ولا لتقاطع ولا لتنافس لأن مطلبنا ليس هذه الدار مطلبنا الله تبارك وتعالى وإذا لم تكونوا أنتم كبراء الطريقة فليس للطريقة كبراء اليوم والكبير لا يصدر منه أخلاق الصبيان والخلاف غير مذموم ولكن تأثيره هو الممنوع kulluna yuxaalifu wa yuxaalafu wa matlabuna fi dalika tabiinu alxaqi wa kulluhum ixwatun rubama yuxaalifu fi lfahmi walakin laa yakunu dalika sababan litafriqati hada huwa alxaqu laa yusmacu xilaafun bacda hada فهذا شيء واحد وهذا ما قلت تأديبا لأحد ولا قصد ترويع لأحد ولا فرح فرح آخر إنما qultu xaqa faqat waqad jaddadtu lakum jamian wa antum fi ayni rida walqabul indi assalaam allahuma salli ala sayyidina muhammad leetar bi xaddami Mauritanie la ko bàyyi bindoon ngir sabab boo xam ne du waxi rajo waaye kenn ci mag ñi taalibe kenn ci ñoom romb na ci moom mu ne ko beesul ci man wax ji jóg nag ba agsi fii ñoom ñi nga xam ne ñoo doon sëriñ sëriñ si loolu indi coow ci seen biir ba coow li agsi ci baay baay bind leen leetar bi mu ngi commencé ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi jàng saar bi yàlla gëñ ñu ne ci jamono la gëñ ñu ne ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa la gëñ bàyyi na boo xoolee ñaar yëpp da gis ne benn la jamono yëpp jamono yonent la sallallahu alayhi wa sallam ndax moo tëbb barab ak jamono yàlla gën ci jamono jooju ne doomi aadama dafa perte mu ne yàlla bu waxee dara dañ xam ne dëgg la rawatina nag bu demee ba ciy gëñ nag te lim gëñ gi nga daf koo feddaliyaat feddali na ko ci inna feddali na ko ci laamu taakid inna al insana waxul wal asri rek al insaanu fi xusrin inna al insana la fi xusrin doomi aadama nit perte na lu may ñi nga xam ne dañoo gëm jëf faratee ak naafile yi dénkante dëgg dénkante muñ kon yàlla gëñ na ci dund yonent sallallahu alayhi wasallam ne nit ki perte na lu may ci ñeent yi nga xam ne mooy génne nit ci perte googu kenn mënta mucc nag ci perte googu lu may ci ñeent yi yàlla tudd gëm ak jëf jëf yu baax yi dénkante dëgg dénkante muñ bàyyi ne ku gëm mucc nga ci perte ak ñàkk gëm ku jëf-jëf yu baax yi mucc nga ci perte ak ñàkk jëf lu baax ku dénkante dëgg noonu ku dénkante muñ naka noonu kon nag comme dénkante dëgg ci yoon wi la bokk te ci sababi mucc ci perte la moo tax bàyyi ne dafay feddaliku ci ñun ñi dénkante dëgg dénkante muñ pour ñu xam ne ñoom ñëw na pour dénk leen dëgg mu ne gëm yàlla alhamdulilah mu ngi nii ci yéen maanaam gëm ngeen yàlla te ñun ñëpp wala ñenn ci ñun jot nañoo def ay jëf yu baax waaye nag force yi faw ñuy dénkante dëgg di dénkante muñ te loolu mooy oote jëm ci yàlla faw ñii fadlu góor-góorlu ci oote jëm ci yàlla oote jëm ci àlla dafa war mu ne wax naa ay mbokk ci benn dëkk ne leen oote jëm ci àlla war na ku ne duur rek li nit ñi foog ne mag ñeeg boroom xam-xam yeeg kilifa yi la war waaye ku nekk rekk oote jëm ci àlla war na la ci sa kem bàyyi mu ne man dama gis ne sax xeet wu nekk ñoo gën a mën a seen a xeet mbooloo mu nekk ñoo gën a mën a o mbooloo miñ nekk ak seen oote mooy gën a gaaw a jeexital ci ñoom mooy ëpp jeexit borom métier yi sàmm yi baykat yi ku ci nekk rek ka bokk ci ñoom moo gën a mën a jeexital ci ñoom mu ne sàmm bi bu gisee sàmm ni moom di julli di oor jub ci diine mu roy ci kooku daf ko yomb jigéen ñi naka noonu jigéen ñi ñoom moo leen gën a mën a oo xambaane yi naka noonu buñ gisee jigéen ni ñoom ku jub tegu ci yoon bu leen di oo ci diine dafay gaaw a jeexital ci ñoom baykat yi noonu ndaw yi noonu wuuteeg ay ndaw bu benn mag ñëwee boo xam ne dund na dundam yëpp ñëw di leen oo ci njub ak nangam dañ naa ah paa bi noos na ba mu tolloo ni ñun léegi nag léegi mu bugg ñoo oo pour ñu dund dundam waaw jigéen yi noonu da dégg ah bu ñu gisee jigéen yi muuru sax ñu ne day meer meerlu déedéet meer meerlu fay jullit jullit. xale bu dem ci jumaa ji ne dafay paapaalu bàyyi ko rek kii dafa goog waaw xale buy dem ci diine loolu dafa óorut sax loolu du dëgg seytaane moo koy siiwal du dëgg diine ji xale yi ñoo ko ameewoon ñoo ko siiwal seydna ali ibn abi taalibin ba muy jàpp lislaam juróom-ñetti at la am ba jàpp lislaam juróom at la bu fekkoon ne xale du jàpp diine kooku du jàpp diine fekkoon ne xale du baax kooku du baax xale bu buggee nekk mag mu baax ëllëg dafay baax ci xale moo gën a yomb màgg war yombut toog ba mag di jàng nga war yombut du tere mag bu buggee jubantiku mën naa jubantiku waaye jubantiku ci ndaw moo gën a yomb <coughs> ngi mel ni jubanti sa bànqaas bi fekk mu ngay tooy rek waaye bu demee ba wow boo ko buggee jubanti dafay bañ mbaa mu dam bu mag ñëwee di ko waa daf naan mag mi dafa dem dox na dox na am ba pare <coughs> waaye bu ndaw ñëwee ni moom di ko waat boobaa dafay mën a jeexital ci moom booy ànd xale ngeen di dem école di jàngi nga gis ne mu ngi julli mu ngi or mu ngi téye kurus waaye mu ngi jàng nag boole ci bu la ooyee ci loolu danga ko mën a uyu waaye bu fekkee ne boo gisee muy julli di or ak yooyu ba pare bu at me jotee du at dangay jàpp ne kii julleem bi ak oram bi moo ko tere admi moo tax ndaw lu jub lu baax mooy man a oote ndaw baykat bi noonu boo ñëwee di ko wax affaire julli mu jàpp na yow yow amoo tool moo tax moom bu ñëwee topp la ci sa wasifa yi moom mën naa am moom toolam bi dana booy waaye boo defaree sa tool ba mu baax naka bosam walla gën a baax bosam mu gis la ngay julli di jàng alxuraan nga oo ko ci mu uyu dafay daf koy yomb nit ku nekk ndax jikko yi dafay wàllante te ki nga dëkk moom toujours moo gën a yomb pour jikkoom royaat ñëw ci sa jikko moo tax ku nekk rek war nga oote ci ci sa kem ci sa dayo ndaw yu baax yi oo nañ ndaw ñu baax ñi jigéen ñu baax ñi oo nañ jigéen ñu baax ñi sàmm yu baax yi oo nañ sàmm yu baax yi eh, ñoo oo sàmm yu baax yi eh, dawalkati jàkkartaa ñu baax ñi ñoo oo dawalkati jàkkartaa ci or ci nangam mbooloo moo dem rek ña baax ci ñoom ñoom ñooy njiit li ñoo gën a yomba oote waaye bu ñu toogee nekk seen jàkkarta benn paa dox ba kii ñëw di wax ñu ne ah paa bii daal bokk sax ñun xaal ba pare bu ñëw oo ci kii ñun paa paalooñu yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa tuddee njiit lu jub foofu la tuddee ndaw lu jub sabaatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu imaamun aadilun wa shaabun nasha'a fi taatillahi juróom ñaar yoo xam ne yàlla dana leen keral bés boo xam ne kenn amul ker lu ma yàlla daf na njiit lu jub <coughs> imaam duur rek kuy jiite julli booba bu ñu waxee ilimaan wi xalifal muslimin ya ilimaan la raïs dawla imaam la imaamun aadilun njiit lu jub ak ndaw lu sosu ci topp yàlla ak koo xam ne jigéen ju rafet ju am askan daf ko oo ci boppam di ko sàkk mu ne ko damaa ragal yàlla ak koo xam ne dafa wéet di ñaan yàlla ba bëtam tooy ak ronxañ fees ak ronxañ ak koo xam ne xolam dafa aju ci jumaa ji julli gum julli rek mu ngay xaar xadul béy waa ji ñëw pour demaat ci ak ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla tax ak koo xam ne dundale na ci ndeyjooram nëbb ko ba càmmooyam xamu ko juróom-ñaar ñooñu yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla dana leen keral bés boo xam ne kenn amul ker lu ma yàlla tabaraka wa taala tudd na ci ndaw lu sosu ci sopp yàlla kon ndaw terewute jub ndaw yee gën a xëy ci jub <clears throat> ndaw yu bari nag dañoo foog ne dañoo war a xaar ba màgg door jub ku leen wax ne dañuy màgg bàyyi mu ne mbooloo moo moo moo moo dem mag ñaa fa gën a néew lu ko waral mooy seeni maas dañoo dee ba ñuy daw rek mu ne ñooñ sàggante nag dañoo réeree ne oote jëm ci yàlla daf leen a war di wax ne ñoom am nañ ngànt mu ne boo ñëwelee borom tool yi ñee la ñun suñ tool yi daal moo ñu soxlaal fi mu ne nii ba léegi daal ruuj mi pareeguñ ci waaw ñu ngi ci buddi pakk yi fu ne lii daal mënuñ ko booleeg di di dem di wasifa wala di jàng ay alquran ak yooyu wala di teew ay dars wala di julli nag sàmmkat yi mu ne mag màggat bu ñëwee di leen wax loolu ñoom it même lay boobu lañuy am waaye sàmm ni ñoom bu jub ci diine bu ñëwee rek mun nañ koo topp mu ne kon ñu xam ne war na kenn ku nekk ci ñun mu oote jëm ci yàlla waaye oote jëm ci yàlla sa wax yi na ko sa jëf yi dëggal waaye boo ñëwee wax wax ju neex nga tourné ñu ne ay kii du julli di wax gi wolof dañuy wax ne duy sangu di digle sang moo tax dana gën a yombal oote li ngay oote nga ne ci ku nekk nag war na la ci sa kem dayoo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan dikkal nit ñi seen i jotaay di leen dikkal ci seeni i néeg di leen oo saxaaba yi naka noonu masu ñoo tayal ci loolu diina ji diina ju leer la ay guddeem yi ki bëccëgam yàlla nee na yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla yoonalal la la ci diine li nga xam ne moom la dénk noox ak li nga xam ne moom la la wax yu jëm ci yow te moom la dénk Ibrahima dénk ko Moussa dénk ko Isa lan la deen dénk mooy ngeen taxawal diine bañ bañ a wuutee di fasanti ko bàyyi ne na wuutee rek duur luñ tere ndax doomi adama yi yàllaa leen sose ci loolu yàllaa ko wax wala na muxtalifina illa man rahima rabbuka wa lidalika xalaqahum duñ dañ mukk di utee kii gisee nii ki gisee ne la utee boroom xam-xam yi it yërmaande la waaye liñ aaye te ŋàññi ko mooy tàggale ko uute ci xalaat bu demee bay tàggale nit ñi loolu lañ ŋàññi nit ki mën naa dégg nii moroomam dégg neneen ñu utee ci dégg loolu du luñ ŋàññi bu fekkee du jeexital ci xol yi ay mbañeelante ñi gën a màgg dañ doon utee ci xalaat saxaaba yonent yi utee nañ ci xalaat yonent yi utee nañ ci xalaat jànga yonent yàlla Suleymaan uteeg baayam yonent yàlla Daawuda ci xalaat yàlla wax sax ne li daaw li Suleymaan wax doom ji moo gën a wér fa xam naa Suleymaana kullan ateenaa hukman wa ilman ba nga xamee ne nit ki ñëw na toolam dañ koo yàq borom gàtt bi dugg ci toolam yàq tool bi daawuda war leen atte mu ne borom gàtt yi yow yàq tool yi waa ji waa ji dafay jël sa gàtt yi moom loolu la Suleymaan ne man li ma gis du loolu mooy ne borom gàtt yi na bàyyee borom tool bi gàttam yi muy jëfandikoo meew meewam bi ak ay karawam moom muy defaraale tool waa ji bu defaraale tool bi ba tool bi baax mel na meloon borom tool bi delloo ko gàtt mi yàlla wax ne àtte bi Suleymaan lañ ko déggoon waaye ñoom ñaar ñëpp jox naa leen xam-xam jox naa leen xikma waaye àtteeb Suleymaan moo gën a wér àtte baayam fii te kii mooy baayam te yonantu la ni moom te borom xam-xam yi sax nee nañ booba Suleymaan sax booba yónneeguñ ko kon uutee ci dégg wàññiwu dara boroom xam-xam yi dañuy uutee ci dégg seen dégg yi nekk yërmaane boroom xam-xam yi léeg-léeg ndaw dana dégg lu mag déggut yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak saxaaba yi ñoom ñëpp ñu toog mu ne inna min ashajari shajaratun laa tasqutu waraqaha am na garab ci garab yi boo xam ne maanaam ay xobam sax du rot garab googu daal dafa mel ni ku gëm yàlla maanaam léppam njëriñ la saxaaba yi ñu ne ñuy tukki ci garabi àll yi di xalaat garab gu nekk xalaat nañ ko xamuñ ban garab la yonent bi sallallahu alayhi ne leen mooy garabi tàndarma abdullah ibnu omar doomi seydna omar bañ jógee mu ne baayam man de xamoon naa garab gi waaye damaa rusoon yéen mag ñi ngeen toog man may wax mu ne ko waaye lii boo ko waxoon moom ma gënaloon àddina ak li ci biiram dégg nga pour xamal ko rek ne ndaw war naa mën a war naa mën a dégg xam nga ne Seydina Omar moo ëpp Abdullah ibnu Omar xam-xam moo ko ëpp dégg waaye lii Seyd Abdullah ibnu Omar dégg na ko te Seydina Omar déggut ko te Seydina Omar nangu na ne loolu war naa mën a am utee ci dégg mu ne bu ñaar ki xalaatee lii kii xalaat li ku nekk jàpp ne yaa nekk ci sawaab dégg nga kenn du wax ne man maa nekk ci sawaab dégg nga ñi ci des ñëpp liñ nekk xataa imaam Shafii daf doon wax ne sama sawaab bi maanaam li ma jàpp ne moo jub njub la goo xam ne nii nangu na jumte waaye li keneen ki njuumte keneen ki mooy li ma jàpp ne keneen ki daf ko wax muy njuumte njuumte la boo xam ne nangu na nekk dëgg buñ mën a dëppoo baax na buñ mënta dëppoo ci xalaatim wuute xalaat rek warta jeexital ci ci ci ci ci ci xol yi bay indi mbañeel ak nooneel bàyyi ne utee tàbbi na ci saxaaba yi mu ne utee boo ko xalaat boo ko xalaatee lu ci gën a bëri da nga fekk ne lu tuuti lay nekk waaye seytaane mooy dugg gomfale ko réyal bakkani doomi aadama yi eh, dugg moom it def wàllam pour utale nit ñi naka noonu nooni diine yi dañuy fekk mbooloo mu ute ute bu ndaw ñi jël ko réyal ko pour dugal nooneel ci seen biir pour néewal lislaam doole bàyyi mu ne kuréel islaam yi nga gis xawaarij ak chia ak ahlu sunna wal jamaa ñoom ñëpp danga gis ne seen utee dafa nekkoon lu ndaw rekk cosaani utee lu ndaw la waaye li wax noonu moo ciy dugg tariqa yi boo gisee seen cosaani utee lu tuuti la waaye loolu yëpp warta àgg mu ne ci mbañeel ak noonaante ak ak ak ak njëkkalante mu ne jamono Cheikh Ahmed Tidiane diggante ñaar ci mbool taalibeem utee jot dox na ci seen diggante ba loolu jeexital ci seeni taalibe ah ngi indi wax ji Cheikh radiyallahu anhu Cheikh Tidiane ne leen man yaa arif nii ni wax di ku ma xam daal ma ngay xam maanaam boobu def leen a bugg a wax ne yéen yéen a ngi nekk ay waasta jëm ci man dégg nga waaye man maay sëriñ bi dégg nga waru leen a sax gàllankoor nit ñi ci kii mooy sëriñ ba kii mooy kii mooy sëriñ bi Cheikh Tidiane yëkkati ndigalam jël ndigalam ci ki nga xam ne nii loolu sabab bi ci moom la jóge woon ba tey loolu it ci tegginu mën nañ cee ñàkk jaaraat tariqa bi am na ay charte te yéen xam ngeen ko dagg ci tariqa bi mënta am lu may nit ki dafa jël tariqa bi bàyyi ko carrément duut sàggan ku sàggan da ngay beesu waaye jël tariqa bi bàyyi ko carrément wala nga jël tariqa bi dem ziyaare waliyu bu du tijaan ziyaare taalluq maanaam ngay aju ci moom comme ni nga aju ci sa sëriñ wala nga jël ko ba pare dem jël beneen wirdo ci kawam lii tegtale loolu mooy ne mu ne Cheikh Ahmed Tidiane ànd ak bëreeg ñi jël ci moom tariqa radiallahu anhu ci jamonoom lépp gisuñ mu dagg ci tariqa bi kenn daggut ci tariqa bi lu may ñett wax na ne moom radiyallaahu anhu ne yonent bi digal na ma ma jël sama ndigal ci ñaari gaay yoo xam ne dañoo ziyaare Mawlana Abdusalaam ibnu Mashish Abdusalaam ibnu Mashish mooy sëriñi imaamu Chazuli yi Cheikhu Tijaani bu ko daan ziyaare njëkk mbiram di feeñ bu daan ziyaare di Abdusalaam ibnu Machis daf daan raam sax pour nga xam ne nit ñi yu baax yi ñu am dañ ko xeeyoo dañ koo hut dégg nga waaye foog ne bala ngaa màgg mooy doo faale kenn mooy lay tax nga do nga doon dara duma doo faale faalewu ma kenn waaw gisuma kenn waaw sama seriñ rek laa faale wala sama baay rek laa faale bu ko nit ñi defee sa sëriñ keneen du ko faale sa baay keneen du ko faale <clears throat> boo faalee sëriñ dangay faale sëriñi jàmbur yi boo faalee sa baay faaleel bàyyi jàmbur yi ndax ndax ñi nga xam ne sa sëriñ du seen sëriñ ñoom it wàccee sa sëriñ seen wàccuwaayu sëriñ boo faalee sa baay faaleel bàyyi jàmbur yi ndax ñi sa baay duut seen baay ñoom it ñi wàccee sa baay fi nga wàcc fi nga bugg yow ñi wàccee sa baay Cheikh yi daf daan raam jëm ci xabru Abdusalaam ibni Masis pour wane màggaayam bu demee nag ba am tariqa ba yonent bi wax ko ne ko aayal sa taalibe yi nangam taalibe yi mu aaye leen ko aayewu leen ko ngir oyofal Abdusalaam ibnu Mashiish waaye daf leen ko aaye ngir teg leen ci yoon wi nga xam ne moom la garabam boobu rek moo baax ci pharmacie bi bu fekkoon ne loolu lay ci des ci pharmacie bi dañ koo war a lakk waaw tegtalewul ne moom kenn rek moom mooy docteur waaye boo buggee faju da ngay jël garab gi nga xam ne ki lay faj xam li la war a amee moo koy moo ko amee moom ngay jël jàppal yoon wi bàyyi yeneen yoon yi du ne yeneen yoon yi du yoon waaye yoon yëpp boo leen buggee boole ci benn waxtu nag nga natt bala nga am sëriñ bul toog ku la neex ku kaalaw nga ne sëriñ kuy oote lu lu ko neex ci boppam nga ne sëriñ la kuy ooteel boppam lu neex nga ne sëriñ la ko dégg ay taalibeem di otel lu ko neex nga ne sëriñ la bu la neexee bala nga ànd ak sëriñ na seet ki ngay ànd ak kan la seetal njubam seetal xamam seetal ndax mu ngi ci yoon seetal ndax moo la tane waaw ku la gën a feebar nga dem dem moo lay faj da ngay sa bopp koo xam ne bàyyi mu ne ñu ngi ko gëx koo xam ne ñi ngi ko gëx nga dem ne moo lay xewi moo lay tekki kooku man laa tekki waaw koo xam ne moo la gën a saay-saay nga topp ko ne mooy si sëriñ da ngaa bëgg a yokk caay-caay rek waaw da bëgg yokk caay-caay bu jaar ci yoon da ngay topp koo xam ne ci yoon la jaar hmm? li taaxud tariqa al qawmi min indi ahlihi wa laysu sawaan fasxaban na mutaabia yooni gars yi bàyyi nee na boo koy jël na ko jëlee ci ñoñam dégg nga te ñoñ ci ñoñ yoon wi tim emuñ booy jël yoon wi danga nga ko jël ci koo xam ne mu ngi topp ci yoon wi parce que xaban na mu taabia na nga jël ci koo xam ne mu ngi topp ci yoon wi koo xam ne daf naa la demal julli te du julli demal wirdo te du wirdo jubal te jubut wasifaal te du wasifa ooral te oorut moytul nangam bul bul ànd ak jigéen joo xam ne du sa jabar te moom bu ko neexee mu am ñetti jigéen yoo xam ne mu ngi ànd ak ñoom te du jabaram bu la ko aayee doo ko baax booy topp da ngay topp koo xam ne ci yoon wi la nekk parce que itaaxu tariqa al qawmi min indi ahlihi laysu sawaan fa asxabatna mutaabia bàyyi nee na ku jël yoon wi ci ndigal gu wér tarixa bi ànd ak taqoo charte yi ko kooku dara du ko dagg ci tariqa bi lu may ñetti yi ñu tuddoon rek taalibe bi fekkee ne dafa jël tariqa sawaun xam na silsilaam maanaam sënadam diw moom a jox diw kook diw a ko jox diw moom diw ko jox ba mu àgg Cheikh Tidiane wala xam na ko wala ñàkk na ko xam wala am na lu mu ci xamut loolu du wàññi dara ci yoonam wi te du ko dagg ci sëriñ bi du wàññi askanoom ci sëriñ bi mu ne xanaa doo gis léeg-léeg ab taalibe xaadir boo xam ne mu ngi tëbboo ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te xamut ne ci Cheikhu Tidiane lay tëbboo ndax moom tëbbam ci bunt sëriñam la ko gisee làmp bi la taal yow lii yow li nga xam rek mooy contour bi ci sa kër moom mooy taal làmp bi yow contour boobu nga xam emal ci sa contour bi garde ko rek boo ko gardee sa làmp bi mën naa ñàkk kuppi waaye terewul sa contour bi am na fu muy tëbboo Cheikh Tiyaan radiallahu anhu dafa wax ne laa yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahri benn wàlli yu du naan duñ ko nàndal lu may ci sama géej lañ ko nàndalee kon man ngaa naan ci géejam te yow xamoo ne ci géejam nga naane kon bàyyi mu ne moo tax yow ñàkk xam sa silsila bi lay àggale ci sa sëriñ bi man na laa ñàkk du la mën na laa ñàkk du la lor Cheikh Tidiane laaj nañ ko ne ko dafa am sëriñ yoo xam ne léeg-léeg eh, yajmauna ala rasulillahi ñi wax ne yonentu nangam yonentu sallallahu alayhi wasallam nangam léeg-léeg ñi ci seen bopp mu ne yëpp benn la ndax bu ñu xamee ne ñoom lañ amee ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee rek la Seydou Mawlud Fall dafa laaj seriñam Cheikh Mouhamadul Hafiz ne ko ndax man yow laay def ne yow yaay sama sëriñ wala man damay jàpp ne Cheikh Ahmed Tidiane mooy sa sëriñ mooy sama sëriñ moom mi nga xam ne mooy sëriñ ñi tariqa bi Cheikh Amdou Hafiz ne ko boo waxee ne Cheikh Tidiane mooy sa sëriñ mooy sa sëriñ boo waxee ne man maay sa sëriñ it juumoo damay tegginu rek waaye li mu ko bëgg a wax mooy maay sa sëriñ ndax maa la jox tariqa Cheikh Tidiane bàyyi mu ne man di taalibi bu ma dikkalee ne ma man yow rek laa xam bëgguma dara ci rek laa bëggee keneen ñëw ne man xaw ma la man sama waasita bi nga xam ne moo ma jokkale ci daal moom laa xam bàyyi mu ne ñaar benn la man xaw ma la moom duma ko wax bàyyi du nag ma xam sama waasita nag bu fekkee ne ñoom ñaar ñëpp mu ne dañoo jokk ci sënët bu wér mu ne ñoo em ndax mu ne bu taalibe jëlee ci Cheikh El Hadi comme li ma leen wax sànq ne waa Mauritanie la ko bindoon ngir sabab ne man xawma ma keneen jël ci Cheikhaani ne xawma Ibrahima bàyyi na ba tey amul amul farq mu ne xam naa taalibe bu bu dëggu bu jege Kawlax Baaba Ñas lañ koy wax bu nekkoon naka baabu dàgg xaw ma ña seen baabu mu ne bu ku dëggu la ku jege Kawlax bu taalibe yi defaan tool kenn du ko ëppale ci tool yi bu ñu indi addiye kenn du ko ëppale addiye waaye bu dajeeg man dafa daf naan ma man daal man daal ci sëriñ mbay rek laa soxla man maanaam sëriñ Bay doy nam maanaam moom jaru sax muy àgg ci Baay bàyyi na te loolu teggin bu mat sëgg la tàndarma gi mu ne maa ko jëmbat mu meññi am ay meññet am ku ci lekk ne man lekk naa ci tàndarma ji bu ko bu ma ko askanu tim ne lekk naa ci tàndarma Ibrahima bi ba tey ci sama tàndarma lekk rek ci man la lekke a ah, bu waxee ne lekk na ci sama tàndarma ji ba tey benn la kon ñaar yooyu benn la ku jël ci man wala ku jëlee ci ku jël ci man yépp benn lañ kon loolu warta indi xuloo pour nga xam ne xuloo bi mooy ay muqaddam ñoo doon bugg a ay taalibe di wax ne ñoom seen taalibe dafa leen bugg wax ne bu seen sax man sama man maay seen kon loolu waruta indi ngeen di xuloo warta indi soriante warta indi daggante warta indi tim xëccoo ndax mu ne ñun suñ bëgg-bëgg suñ jubluwaay du àddina bi suñ jubluwaay yàlla la tabaraka wa gis nga bàyyi gis nga ittëje suñ jubluwaay du àddina waaye waxul ne àllaaxira suñ jubluwaay du àddina yàlla la kon mooy du àddina du àllaaxira te wax na ko feneen matlabu haadihi taaifati xaarija dunia wal axirati wax na feneen ne suma mbooloo mii suñ càkkuwaay càkkuteef génn na àddina ak alaxira lu tax càkkuteef gi yàlla la yàlla du àddina du alaxira te ku ko am am àddina am alaxira kon doy na bàyyi na leen te yéen ñii bu fekkee ne duwut ne yéenay magi tariqa bi tey kon tariqa bi amul mag te mag nag dëgg-dëgg jikkoy ndaw warta jugee ci moom Mouhamed Abdoulaye Seyd mi agsi mu ne ma li ma sant yàlla mu ne bés boobu mu ne mu ne bàyyi du bàyyi du saaga waaye bu doon saaga mën naa saaga di saaga bu métti bàyyi du saaga di xam nga lii bu fekkee ne yéen du leen magi tariqa bi kon mag neewatu fi waaye mag nag jikko ndaw warta jugee ci moom maanaam lii waral seen xulóo bi warta am ndax yéen ay mag ngeen te lii jëfi xalel ñi bàyyi doon wax nii nag bàyyi moom lu ko neex mu wax ci ay taalibeem ndax moo leen di jubanti waaye mag ñam wax na ñoom lañ ñoom lañ mag nag yow sa wareef ci moom mooy nga wàccee ko wàccuwaayu mag rek asa aadamu rabbahu faxawaa lu ci yàlla teg su majtabaahu rabbuhu fa taaba alayhi hada bàyyi mu ne aadama jaamu yàlla la yàlla mën naa wax ci aadama loolu aadama mooy na boromam beew loolu mooy waxi yàlla ak aadama ndax aadama jaamam la ñun suñu wax ak aadama mooy su majtabaahu rabbuhu fa wax ak aadama mooy yàlla tànn na ko jubal ko nangu tuubam mag ñi bàyyi doon wax ku bëgg a baax ci seen yoon ngay jaar ku bëgg a xoyof nag ngay xoyofal seen biir tey nag am nañoo xam ne fooral seen bopp jaral na leen oyofal ñooñu te ñu ngi suufeel seen bopp te yëguñu bàyyi nee na uutee ci xalaat aayewuñ ko waaye liñ aaye mooy jeexital ci xol yi mu dem bay indi wute xalaat dem bay indi fasantikoo ndax ñun ñëpp dañuy uutee nit ñi di uuteeg ñun te fekk dëgg rek lañ ci jublu ñëpp ay mbokk lañ mbokk yi mën nañoo am ñu uutee ci dégg waaye loolu bu mu nekk sababi fasantikoo lii mooy dëgg bàyyi ne bu ma déggati uutee gannaaw tey ñun liñ ne benn la te li ma wax nii waxuma ko pour yar kenn waxuma ko ngir tiital kenn waxuma ko ngir kenn kontaan dama ko wax rek ngir wax leen dëgg eesalal naa leen ak yéen ñëpp te yéen ñëpp gërëm naa leen yéen a ngi ci aynu rida wal qabul indi والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولى خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق لهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم أتنترنا بها الإجابة عينا حين أنفسنا في أهالنا وزرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع غاب وزدنا أعتنا وارفعنا ودافع عنا أحفظنا وسدد أمورنا ورح أبداننا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك استرنا بسترك الجميل وعاملنا بلطفك الجزيل فضلك الجميل وصلى الله عليه وسلم yàlla fatiha bay ñëw ñetti salaatul fatiha ñaanal yàlla sëriñ bi wér ak fan wu gudd yàlla aar ko aar lépp lu mu am

voilà jërëjëf mbokki téléspectateur am contentement bu baax a baax si ànd bu rafet bi nga xamante ne ni yéen a ko ànd ak ñun si liggéey bi fii si kër Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé di ñaanal yàlla Baye Mbaye bi tey di ñaanal yàlla suñu yaay Adja Assou Thiam di ñaanal yàlla suñu sëriñ suñu lépp lu Cheikh Yane na Thiam di ñaanal yàlla akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé waaye di ñaanal yàlla xalifatul am Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne waxtu yu toll nii ñoo àndoon ak ñun si télé bi di ñu seytaan fii nga xamante ne moo nekk kër Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé ñu ngi joxante ak yéen di dajee fii nga xamante ne moo nekk kër Bayaalu Mawlana see Ibrahim bi di Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass dëgg-dëgg li moo nekk tax tafsir bi Cheikh Mouhamadul Mahi macha allah am na solo lool kontaan nañ ci kàddu yi am na solo lool rafet na ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na suñu borom yàggal ko fi yal na suñu borom yokku maanaam bu baax a baax ndaxte dëgg-dëgg lii rek moo nekk Mawlana Cheikh Ibrahim lii mooy diine lii mooy lislaam waaye lii mooy tarixa waaye it lii mooy faydu tu Mawlana Cheikh Ibrahim kon képp kenn suñu ku nekk rek ameel nga njukkal beneen yoon ki nga xamante ne nii moo nekk Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé ndaxte dëgg-dëgg tey fi mu ñu teg fi mu ñuy jëlee ak kàddu yi ne tey mu ñu koy wax dëgg-dëgg rafet na na solo goo xamante ne nii ñun ñëpp war nañ ko delluwaat njukkal di ko ñaanal yàlla moo tax ñu koy ñaanalaat beneen yoon yàlla suñu borom yàggal ko fi may ko fan bu gudd bu ànd ak wér di ñaanal yàlla waa Midaa fi yëpp di ñaanal yàlla njabootu Mawlana Sey Ibrahima bi ne nii koor gi yëpp ñu koy jàppee ba koor gi jeex si naafile gi si xaala dasanaa yi si tafsir bi si eh, diwaanu Mawlana Sey Ibrahima yi ak Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé di gërëm bu baax a baax képp koo xamante ne nii waxtu wi ñu toll nii yaa ngi jëloon sa asakaay poos dugal ko fi nga xamante ne nii mu nekk eh, Kossy TV di ñaan yàlla yal na yàlla sàmm la yokk man gi ak fay gi ubbi ngeen téere yi waaye ñu ngi koy tëjaat dem fi nga xamante ne nii mu nekk fee si Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass kontaan nañ bu baax a baax di gërëm maam biram mi nga xamante ne nii moo ko yembal ba waa Medina Baye di ko mën di seetaan waxtu wi ñu toll nii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lépp lu si dëng rek xam ne na jàmm bu xew bi la waaye Cheikh Mouhamadul Mahi na lépp taxawee na fépp ñu ngi koy ñaanalaat yàlla beneen ñaan moo yàlla ko fi yàlla yàggal lool tamee ko ndax xam-xam bu mel nii gind gu mel nii leeral gu mel nii o wax ju mel nii dëgg dëgg ñun ñëpp amel nañ ko njukkal di ko ñaanal yàlla di teewaat suñ kurus yi di jàpp ba set di ko ñaanal yàlla ndax tey dëgg-dëgg lii yombut suñu amee nag kilifa gu mel nii dañ koy ñaanal yàlla kon suñu kilifaay mi dina bàyyi si képp kuy def dara sota di ko teewee wala ñu ñàkk laa teewee mbaa ñàkk fay egsi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla mel fan bu gudd lool bu ànd ak wér Mawlana Seex Ibrahim yàlla na yàlla fayal ñu ko moom mi ñu andil bindu yu leer yi ak wax ju leer jii nii asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jëf jërë ngeen jëf macha allah